salaatu lazi anu abdan loo bi ala man bi li xaada sabwan bila kadar fasaatu xayril xalqi abdat qasaayidi wa kawni bi abdan xadiman loo sahar rabitu rabam lam yakun qattu misluhu بفضل الذي كوني حبيبا لو استهر salaatu li xaada ak ñu ngi ñaan nga yàgg fi lool ñu ngi ñaan nga wér waaye ñu nii sëriñ Jili ñaan xam ne kenn waaye ñoom soxna ay daak ñoom sëriñ Fa Busaak ñoom sëñ Fallu ñoom ñëpp tabaarakallahu ñoom ñu nuyu leen ziyaar leen ne bi mu ñëwee ci sëñ Basiru ne moo ko fi indi naam mooy sëriñu sëriñam ne ci la la xëy tey nee na Seex Alsaan moo ko woo ni ko damay ziyaari ji sëriñ Basiru yóbbul ko samay addiya ci màggal gii ñu jëm su ma sañoon boo nekkee Touba da nga ko fekke su ma sañoon lu may dox ci yoonu murit di nga ko fekk ni ko maa ngi ci la waaye boo jëmoon ndar dana ànd ak yow rawatina nag nga jëm ci kii nga xam ni bu toogee su sunuy xel ne ci Cheikh Abdoul Khadir rek lay ne ne Cheikh Alassane mii ne kudul kii ne maa la ko njëkk a xam ba ma ko xamee tey fanweeri at la doon lu mu doon lu tuuti. di tukki ñëw. ne di tukki ñëw. yàlla di ko dimbali. yàlla di ko dimbali. lu ma am lu ma am. ko ne séddale ko. ne dellu tukki. ba nii ba nii. kon bu soppee sëñ Basiru. ne bu soppee sëñ Basiru. muy sunub sëriñ. muy sunub sëriñ. gëmewuñ ko. gëmewuñ ko. ngir lim nu yoral. ngir lim nu bu jëm see ci moom. ne faaw ma ànd ak moom. ne ma bëgg ci yow. ndax kii. ne ku yàlla dimbaliwul. amoon ndimbal ne doo ko wër. yàlla nga gudd fan léegi ñu bàyyi sëriñ bi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 gannaaw bi ñu sante yàlla nee na des di ko sant di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ziyaara ziyaara bu tedd ne màggal gi muy seexil xaddim ne di ñaanal seex muntaxa mu yàgg te ànd ak te yeggale liggéey bii ne tegu ci loxoom nee na ci barke maamam Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul nee na du nuyu nee sama wóllëre wu mag wii nee na di sag nee na ci yoonu lislaam nee baax lool nee tedd lool nee suñu gise bariwul waaye su événement amee saa su xat-xat nee Cheikh Mouhamadul Basir danañu ci xajal tuuti nee na ñu nuyu ko nee na du guddal kaddu yi léegi takku san jot te bëri nañu koy xaar di la sant di nuyuwaale sunu bunt ci moom muy Serigne Ahmed Saloum saa su ne maa ngi koy yóbbante nuyoo nee na bu jëm ci sëriñ bi saa su ne nee na sëriñ bi yóbbante nuyoo yu jëm si ci seex bi nee na loolu laa ko bëggoon a seddeel tey nag dama ñëwoon jébbale tamit vingt-huit mille masques yi nee na jox ko xalif bi ngir fi jàngaro bi toll ci réew mi daanaka sax wan nañu ginnaaw ndax ñaanu Cheikh Mouhamadul Mountakha ne daa dégg nga wax ni ki ñu gën a xam sunu bopp gën noo jege yàlla gën nee na su mbir yu mel ni taxawee ne déglu ko mu gën nee na di indi sunu xalaat ci mbir yi ne tënkunu dégg nañ la bu baax wax bi kawe na nit ñi dégg nañu ko yaakaar sax da cay juddoo fan yii gis nañu ni mbas mi dellu na gannaaw bu baax waaye loolu du bett kenn ko xam diggante Seexil Xadiim ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafay wax benn borom xam-xam waa Belgique la nee na physicien la mu koy wax ni nee na histoire bi buñ ko xoolee nee na ñi demoon Lambaréné nee na ñëpp danoo mujjoon a faatu neena na Cheikh Ahmadou Bamba bu Sénégal moom rek a dellu si mu ni damaa jaaxal mi nee na mu ni ko lu tax loolu am ka mu àndaloon la ñamu àndaloon la ca tukki ba koo xamante ni li ta tubaab bëggoon mooy mug zegze ne su mattoon suñu deri ñun nee na interne lay def ne dee moo ca topp waaye musta mat seexil xadim li ko waral mooy leer gi tege ci kaw yaramu seexil xadim yoo bi soriwu ko woon daan na ñëw di barkeelu ci leer gi dan bàyyi ko ci deru seexil xadim ne yemul foofu ne jasit bi li muy man man ndox di man suuf nee na ci seexul xadim daan dem ci booru ndox mi ne jësit bi day dandu di yëngal geenam di barkeelu ci leeru ci bàyyi ko ci seyxul xaddim ne lii moo indi nee na lii moo indi jagayoo boobu nga xam ni moo am ci digganteem ak rasulullah moo indi ku nekk ci réew mi ñëw fii da lay gënal dem feneen ne sant nañu la sëriñ bi mu ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg fi ànd ak wér mission bii gis na lool waaye sa maam moom moo la ko nar a teel sant naa la maa ngi feddali sama kóllëre ak yow xam naa ni sa ñaan nee jogewul ci man nee na jógewul ci ay mbokkam moo tax ma sant la di delluwaat ne lii micro la maa ngi santaat encore le président de la république nee ci hôpital bu bees bi nee na bi mu ubbi samedi ja jamono jii ñu ne ku ku bëgg réew mi jëm ca kanam da ngay àndandoo lii nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ni yaru leen dal leen wóolu leen yàlla wóolu leen ñaanu mag ñi rawatina Cheikhul Khadim li mu ñaan ci réew mi yàgg yàgg sëriñ bi. naataange bu mat sëkk dana am fii de soo déggee isa katabtu ne ne ne ne bayit boobu nga xam ni Serigne Touba wax na ko jëme ko ci xasida yi ne ne saa suñu koy jàng moom xasida yi day yëngaru ne bindam moom day neexal xol ne daf koy seddal waaye dafa am leneen lu muy jur lii di pétrole ak gaz ne faw mu ball fii ci réew mi ndax jokkoo gi ni jokkoo xasida Seexul Xaadimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. di la gërëm ci sa dikk yi nga fi dikkee. ci dikk yi nga fi moom. ñëw siyaare si ci màggal bi ñëw siyaare si ci màggal gi. te daa ko def at mu jot. te daa ko def at mu nekk. sa sa cofeel ci dëkk bi. nee na sa cofeel ci dëkk bi. ak sa cofeel ci sa bëgg Serigne Touba. dëgg la. nee na nag moom nag képp ku bëgg Serigne Touba. ma bëgg rek sama biir xol. nee na li bëgg ci biir xol. kon ñu lay gërëm bu baax. nee na mi ngi lay gërëm bu baax. cofeel gi nga am sama jëmm itam. nee na cofeel nga am ci jëmmam ji. ak jàpp gi. ak jàpp gi. ak cofeel gi. lépp xam naa ko. waaye nag ñu ngi lay bàyyee yàlla. nee na mi ngi lay bàyyee yàlla. suñu borom mi nga xam ne. suñu borom mi nga xam ne. moo dogal loolu suñu diggante. moo dogal loolu seen diggante. ñu ngi fas fas yéene feddali kóllëre. nee na mi ngi fas yéene feddali kóllëre bu baax. parce que yéen a dox bu baax. nee na dina ko dox bu baax. ci yéen ji nga xam ne am nga ko. ci yéen ji nga xam ne am nga ko jëmoo. ñu ànd ko yow bu baax. nee na dina ko ànd ak yow bu baax. ñu ngi lay sant bu baax a baax. nee na mi ngi lay sant bu baax a baax. di la gërëm ci coono yi nee na. gërëm ci coono yi ak yàgg jotaay bu yàgg. ak yàgg eh, jotaay bu yàgg bi. dafa fekk ñu newoon ci xat-xatu màggal gi. nee na fekk mu nekk ci xat-xat ci mbooloo yi rek. ñu nekkoon ci xat-xat ci màggal gi. nee na daa fekk mu nekk ci xat-xat ci màggal gi. yoo xam ne mënutoon a weesu tey. nee na yoo xam ne la mënul woon a weesu tey. loolu moo taxoon ma xaw a xaw fee yàgg. waaye ñu ngi lay jéggalu lu baax ci loolu. nee na ñu ngi lay jéggalu waaye lépp aw yiw la la ñu ngi baax. jërëjëf sant a baax a baax uktubi safar salaatun wa taslimun maal bisi sarmadan ala man bi muksimal amni wal bashar biraari bil muxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsiran ladal jinni wal bashar rabaatu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 رباعي في إخدام خير الورى بدا